ndaysaan mbokk yi ñu suivre ci Equivox TV bégee naa leen ziar leen quatrième combat ba ci géew bi ndaysaan caatu samsam sam wala fils moo nekk noonu arrière na moo féete à gauche omre à droite Sourné Dieye production ñu ngay lewaato lewaato fils de Sam Sam pied droite Omre pied droite ñaari droite ca boo xoolee ñoom ñaar tolloo ci taxawaay ci yaram tamit ëppante wuñu ñu nga ca de ñu ngay lewaatoo dara xewagul ñu ngi lewaatoo boo xoolee fils de Sam Sam mu ngi avancé tuuti ci kaw Omre ñaari droite ñaari droitier eh maa ngi lay bëggee Birino Mbay Modou Mbay fils de fils Sam Sam moo takk lu ci bopp bi Omre moo ñu wan ginnaaw ndeysaan maa ngi lay bëggee moomo amal jàmm delloo ziar ñu ngi lewaato ñaari mbër yooyu Omre moom ngeen wala Fils de Sam Sam ngeen jàkkaar lool Fils de Sam Sam moom ngeen jàkkaar lool waaye daal boo xoolee ñoom ñaar arbitre ngi wax ak ñoom de parce que nag defanteeguñu dara de waaw sànni na ko tooñ na ko droite ñu dellu taxawalaat jekkal taxawaay ya ñaari xale yaa ngi noonu ci géew bi luy tax làmb jeex nag defaguñ ko waa ndax xeex amagul bëre amagul te bu loolu amul yaakaar naa pour jël laam ndax dina yomb lewaatoo rekk laa gis ak gëdd tuuti taxawaat sànni na ko droit waaye ba tey tooñante la ama xalaat nag ñoom ñaar est-ce que am songu amul ko ci bëgg a def wala ñu nar koo jëkkante arbitre atte na leen de a ah daa war a wax ak ñoom topp leen abib arbitre faw mu wax ak ñoom parce que nag dafa guñ dara ah te ba arbitre ba màcc suuf léegi léegi yàgg na mu ngi leen di yedd a ah woy bëre géew bi yaatu na waay ñëw ba ci saako bi te bëri andiwu la fay du yoon saako bi ku fay ñëw bëre la fa war a andi ñu ngay lewaatoo de dara xewagul de nu ngay demaat ca saaku ba de li ñuy sànni ceer bi rek lay dem waaye dara lu ci dal ci kanam gisaguma ko man ana wàcc song ana wàcc wàcc songu anamu ana wàcc songu ana wàcc songu maa ngi lay bëgg a pël ana wàcc songu jàppoon nañ waaye dara amagul dara xewagul de eh yokku na ko taf na ko daan na ko oh, caatu sam-sam daan na omre da koo taf walbati ko waa ngi wax ak ñoom cinquième combat de la soirée ngeen jàkkaar lool Ibou Socé wane ginnaaw waaye bu soose moo féete à droite yaa xam ngeen jàkkaarloo noonu en face ño ngi taxaw jatak ñaan le grand président Bour Gueweul. waaw waaw ah, ah, mel ni yow rek. ah Babacar man ngay dëgg rek si bopp. parce que da ngaa yor ñaar ma yor ñaar. Babacar ah! <laughs> Babacar ndax àddina jar na lii Babacar. lépp teraanga la day maa lu jaral lu ko Babacar. romb na ko sax. ay tey naaru coxora caay ji min tey Babacar. naaru nana ma le combat bi kot la. hey. dañuy cooki Babacar yaa xam bawal. <laughs> yaa xam bawal ak Ibou Socé. oh aywaay Babacar ñu ngay ñu ngay xeex Babacar. waa jàppante nañ de buur. mais nañ sigg cooki tuuti waay Babacar sigg cooki cooki daa neex. bëgg naa ko Babacar. daa war di am ci combat. am may mais moo koy neexal ñi fi toog ñëpp ay ëffalkat lañu. cooki ba mu saf saf. ay ëffalkat a toog ñoom. yow mi sax da ngaa ëffal. ëffal si kat laa Babacar. yaa dàq ëffal. ñoom ñaara nga ca kon ëffal nañ leen yaa xam bawal bu soose fi mu tee baax na ba pare ngeeñ la ah jàpp na la nde hey da koo bëgg a xar booy xar bi dafa leer lool caxabal bi tam baaxul yaa xam bëgg na jeexal bëre waaye Ibou daal lank kandaare Ibou koy ñam de ah way loolu de bu saxee léegi dóor mu daanu am waaw a ah, foo jëm taxawal yaa xam bul dem a ah, Habib yaa xam yoxo suna de yaa xam yoxo suna yaram waaye daa mel ne Ibou Socé mi liggéey naw yaramam Habib waa ku ngeen di yoole billaahi dañ koy daan bëre la ñuy def ku seen bër onge bu yoof yoof leen dëkk yoof yoof onge yàlla ka yàlla may ndam onge yàlla ka yàlla may ndam mala sa mala sa bu yoof barka ñu amuñu lu leen duñ taw ay la bu leen duñ taw onge bu yoof lañu àndal dañuy daan par la force ñun duñ taw ay la bu leen duñ taw parce que leelu alxuraan combat bi du yàgg du yàgg du yàgg du yàgg lebu yaa ngoongu waa kër onge bu yoof a kër onge bu yoof ñi ñooy waa kër Ongué bu Yoff cey lamba lamba ngongu géej nga jóge Bargny géej waaw. yaa ngi ci ñaata combat. sama dixième combat nekk nii. ñaata victoire. sept victoire lii li nga doo defar lii. victoire. waaw ah. non sept bi mooy dixième bi. neuf laa amagul bi mooy dixième bi waaw. ok kon xanaa combat bi dina gaaw sa combat ak Bastonnaire. non combat bi du de man fi ñu dem dafa sore ni ma bëgg a yeewoo ko léegi dem ñibbiwaat. Bargny géej kese Bargny fépp. waaw dëkku Coen sa dëkku Forza. waaw Bargny géej rek. waaw kese guddi guddi bari ni waaw jaajëf naar borom soogaas naar borom pikin aka yàgga fere nay gune waa mais naar mais naar danga ma bàyyi Ababacar Sadikh maa ngi lay ziar maa ngi la koy delloo naar aka yaa baax kenn gënu laa baax naar yow mbaaxaan nga dëkk dama mel ni yow rek naar mbaa yaa ngi am jàmm waaw alhamdulilahi rabbi yal na la yàlla defal jàmm. yal ko yàlla bal defal ko bépp doomu aadama. rabbal alamin amin amin mais naar seree naar dal naar kenn gisu ko bopp ba tey lu xew naar. bu nekkee la cee xew. tey dala xew. dala xew. na buggi avant combat ko waral. lamb bi déggoo li ma la baax lamb ji. dama ko bëgg. da bëgg lamb bi tey jii. waaw. luy gagné lamb tey code la may ma tuuti ci kanam ma wax la ko. di nga ko décoder. may ma tuuti ma ci kanam ma ñëw wax la code bi yow. xale bu wex xatt la de. tuur mu daanu la mujj a def de. incha allahu rabbi man kilifa laa. loolu de ay wax la. kookooy naar. gis nga cummi kaayal naara ngongu. jël ma naaru soogaas abib. naara ngi ñu koy sotti butéel yi. a ah dana dina côté côté ci kanam ñu xool. ñu ngi koy sotti borom caaye ji muy cëppi cëppi waaw moom nag caaye lay sol naaru saf xorom lool waaye di bëre xale boo xam ne tamit xale bu we xatt la muy Jackson kon daal ci kanam xam naa lamb ji dina neex dafa mbër mook xale bu dëkk jàmm gën ñoo war a bëre dafa mbër a ngoonguy dugg si buur géwél jàkkaarloo bu nar a doy waar buur géwél dafa mbër fi mu jugee ak waa ñaari mbër yu neexay bëre yu neexay bëre yu saf xorom ay njaago bi lu mu bëgg Babacar njaago or la tudde boppam li mu bëgg day nanaat jaar ci kawam jàll rek kon lu njaaga xaalis lu njaaga përëm or la tudde boppam moom lis njaago waa mais waa mais xool li si muy cëpp-cëppe Babacar mu ngi cëpp-cëpp lii mooy mbër xool li si muy cëpp-cëppe mbër day yëg boppam mbër day yëg boppam pour lu muy mel ni xar bu lekkee ripaas parce que nag saa boo sa xar bu lekkee ripaas mbala ngooñ ba suur ñaare lekk day ubbi xel waa ñaareel xam nga daa baax ndax yàlla du yàlla digle lu baaxul mu déedéet déedéet Babacar yàlla lu mu la def leen ko rek moo gën ci ñun moo gën ci ñun Babacar ñàkk koo def erreur la erreur la Babacar ku amul ñaareel wuti ko ku amul ñetteel Babacar demal ba ñett ba ñeent yàlla ko wax kon moo dolli Babacar bu la neexee ba ñett bu Jackson taxawee di nga wax li Babacar waa lu ma ciy ragal Jackson Fatim looy ëffal Fatim ah, déggal Fatim Fatim yaay gooy lu muy wax Babacar yaa ko naan mu ñetteel ah déet ne ba ñeent ah, ba ñeent waaw eh, xam nga looloo tax ba Abdou Fall naan ñaar ñi rek nga na koo xamul waaw am na koo xamul dëgg Tapha Mbeur waaw nee mu dëggal boppam waaw ay waay père nanu may waay commandant Thiouna ah non ak moom mooy na tey sequt ak moom i wax waaw woo ma maanaam ku am ngi jox rendez nga xamante ne mooy ci biir xam nga bu xewlee il faut am nu ñu mel xam nga sañ saw par fond wu parce que géej jar na ko quoi sama nami ah. voilà loolu rek laa. loolu rek nga def loolu rek la amul leneen. nga dama laa sopp. man dama la bëgg samay rawaan ñoo la bëgg samay rab. yàlla xam dama laa sopp. je t'aime moi bi. sañse bi. ah, ah mais la ñu. éloquent adduna la ñu nekk. élégance. nit ku ne. personnalité. <laughs> kookoy Alaaji waaye bu lox dara voilà. ngi toog mais kan mooy diri tëgg mi. Trésor a ngi nii taxaw. yow yaay dirigeant yaay yaay na ci kanam. kii mooy diriger waaye tey maay tuus waaw. yéen kan ngeen di tëggal. Jackson. lu ngeen koy tëggal tey Jackson. lu bees tax la gars yi indi. lépp ngi lay bëggee ku góor. waaw ñu ngi ziar bu baax ay. mu neex. waaw waaw sama rax waaw. waaw. ngeen koy tëggal. tey lu nooy lu nooy te neex rek. bu ngeen ma ci mën may tuuti cof bu sew rek. waaw laabali waaw. benn làbbi la rek ma dégg. waaw na kaay may leen ma tuuti làbb li ma xool. waaw na kaay jàpp. waaw leen temps. jàpp ñu jàpp temps ñu may ma làbb li ma xool. waaw waaw. may leen ma tuuti làbb li rek ma xool. eh. eh làmb leen ko la la ko bi boo bëree kon ci kanam man naa ko waaw yaakaar naa ko wallahi a kon ci kanam tey mu mel ni yaa ngi ñëw toog ci bisu Dieye production mu mel ni yéen promoteur yëpp yéen a ngi ànd tey ñëw ko quoi waaw ma am ci mbégte bu baax rek am ci mbégte tey bu ñu ñëwee fii tey suñu nawle promoteur yi tëgg di Dieye di nit ku baax comme li la Kandji wax léegi rek di nit koo xamante ni tey doo ko dégg ci dara muy nit ku baax tey dañuy sawar pour ñëw si làmbam daal wax dëgg yàlla waaw ñu ngi rek comme li Kandji wax dama ko àbbu wax boobu rek bu leeree ma dem incha allah incha allah ñu ngi ci daal. <laughs> Mor Mbaye maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Babacar. am nga jàmm am naa jàmm. Mor Mbaye tey yaa ngi ñëw toog yow itam comme ñëpp ah ñëw ci bésu Dieye seen frère lu ngeen di wax ci bés bi ak looy wax Dieye. waaw xam nga Dieye dafa nekk koo xam ne ci man mën naa ne kenn la ndax sama sama sama géer la quoi nit da ko baax ci man ca ah, boo gisee. yàlla fay rek la xol rek lay fay nit ku baax la boo gisee bis bi rek xam ne bis bis di tuuti borom lay tollool bis bi daal neex na gars yi ñëw nan maa ngi nuyu sama gars yi nag Sam Mbaye Fall ak kañ yi nga xam ne fu ñu jëm xëccaale ma ni ma Mor Mbaye nan dem te xam nga lamb ji doy na waar doy waar boo xam ni xam nga li ma wax boo am na nu muy demee rek mooy loolu daal yow yaa ma gën a xam mais nag ñoom dan maa encouragé di ma di ma di ma dooleel di ma di ma di ma di ma di ma may fit daal waaw te xam ni xam nga adduna am solo daal waa yow it lay sant bu baax adduna. jaajëf sëñ Fall bàyyi laat Mbaye maa ngi lay ziar. ne xam la nga waxtaan daa am solo trop. waaw waaw waaw noonu la xam nga boo ñëwee ci kër ñu yaatal la da ngay wax lu am wax lu am solo jërëjëf ñu lay sant di la gërëm waaw. tey sa frère promoteur yi ñëw ñoom Sambaay ñoom Dieye ñoom Fallou Ndiaye ñëpp a ngi fi maam Diarra Fam parrain bi ñëw mu mel ni Dieye saa yu xëyee rek mu ngi yokku lamb. waaw comme d'habitude rek sant yàlla suñu borom. ñoom ñëpp ay borom baax lañ maa leen di nuyu ñoom ñëpp ñi ñëw ak ñi ñëwut di leen leen gërëm làmb la rek lamb lañ sentir boo taxawalee làmb ñu sentir baax dañuy ñëw kon làmb lañ sentir ñëpp ñëw nañu a ah, yàlla baax na noonu la waaw. diggante Liss Ndiago ak kii yaa ko taxawal ak xale bi ñuy tax Tapha Mbeur Dieye mu mel ni noonu nga ma bu dimanche gars yi nañ gis lu bees teq waaye tey fi nga génn amateur yi daa mel ni seen xol sedd na di Dieye. ah waaw mais waxoon naa la ko xam man cest man homme de la lu ma wax koy jëfee. moo ta du ma a wax yakar naa combat bi ñëpp kenn xalaatu ko woon kenn bëggu ko woon voilà xëccoo bi daa bari woon nag waaye xam nga rek doole doxul jàmm. ndaysaan boo xoolee mbër mi Habib li mu takk bëri na macha allah mel ni kuy waaj dem ca géew ba mais mbër maa ngi lay bégg. maa ngi lay da ngay waaj a dem géew ba xanaa. Ah, combat boobu dina métti. bilaay walaay. waaw. Ah. de. waaw ñun borom caaroy mboolo. waaw. ki koy yóbbu daa kaala boppam. sonangoo nguy dugg ci géew bi. jak sonangoo nguy dugg ci géew bi. xale géeja way mbooloo bi. eh Jackson. Jackson a ngoongu Habib boo xoolee kenn ki ko topp ci ñett ñi daa mël faw xaw ma daa mël faw xaw ma daa kaalaw waa mooy ku koy takkal sengoor yi ci ndigg li loolooy ay sengoor Habib ñu ngi ko koy yeewal ci ndigg ay Jackson nee dina décoder li naar côté jël na benn butéel yëngal da ko koy sotti dindi na la mu wekkoo joxe ñu ngi koy sotti di lit ba waa lii meew la wala ban saaru kii la walla ban la wala lan la lii lan la te waa ji mu ne su koo xame de waa ji laxas laxas kanam bi ba bët yi dongay feeñ Habib jëlal lii ay Habib abib lii mbaa la ko sangoon tey di nga nelaw lu doy waar a xool ko xool ko ndax eh moog naaru daje nañu eh Jackson ak naar Jackson ak naar Jackson ak naar xool xale géejawaay bi ak naar cey ji làmb maam jaara faam maam jaara faam a ngi tëj spora bi